fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd suñ diine jii nee na ku ci sot loo xam ne bokku ci dañ la koy delloo kon loolu lu mat a am bàyyi xel la ngir sa jaamu yàlla dëppoo sunna nag faaw juróom-benn yëf yi daje mu door a dëppoo ak sunna xatta tataxaqaqa almutaabaa la budda min sittati awsaaf alwasf alawal an takuna alibadatu muwafiqatan lisharia fi sababiha jaamu yàlla gi dafa war a dëppoog sharia ci sababam léeg-léeg jaamu yàlla yi day am sabab yoo xam ne moo tax ñu di ko def masalan siiwee nañ lool lii fi jege lool muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi nekk muy rajab léeg-léeg nit ñi dañ koy wutal ak feet wala ñu di ko wutal ay xew-xew luy sabab sa ñu ne bis boobu ci lañ rañaane woon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi kon jaamu yàlla lañ cay def ndaxte ixtifaalaat yooyu ñuy wax wala feet yi ñu ciy def wala xumbeen ya ñaare lañ ci bëgg mooy tuyaaba wala déet su fekkee tuyaaba lañ ci bëgg loolu mooy jaamu yàlla kon jaamu yàlla googu luy sababam ñu ne ci lañ rañaane woon yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaw ndax loolu sababu ak jaamu yàlla la goo xam ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam xam na ko ñu ne ñu xool kon kooku ak jaamu yàlla lay doon goo xam ne wuute na ak sharia ci sababam nu mu wuuteeg sharia moo di ne ba ca jëkk saxul ne ci histoire saxul ci histoire ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar lañ ko rañaane woon kooku saxul ah ku ne am naa dalil ci ne sax na kon yu wax ne téere xadiis a ngoog dawaa wiinu sunna yi am ak téere taarix yi sax indil nu benn riwaaya boo xam ne bu wér la bu sax buy wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi googu lañ ko rañaane woon riwaaya bu mel noonu amul ku la ne am na nee ko demal indil ma ko te wax ma ci ban téere la nekk du la ko yut kenn saniwul kon loolu wérut ci wàllu histoire ne ci guddi googu la woon wuute nañ sax ndax weer wi weeru rajab la am waaye la gën a wér mooy ci weeru rajab la gan guddi la saxut ci histoire mu des ba tey ndax su fekkoon ne dem nañ ba mu wér ne guddi googu lañ ko rañaane woon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ak jaamu yàlla war na ci am goo xam ne nun jullit yi dañuy daje di ko def spécial pour guddi googu ñu ne ah bu fekkee sharia digale diglewu ko day jaamu yàlla googa du wér ndax sharia digle na ko ñu ne déedéet yonente bi alayhi salatu wasalam diglewu ci lenn su fekkoon ne sax na itam foofu nag saxul kon kooku liñ ciy joxe mooy menn misaal ci wane ne jaamu yàlla gi ngir mu dëppoo ak sunna faaw su fekkee gu am sabab la sabab sa na wér ci sunna sabab na wér ci sunna kon menn misaal a ngoog ci jaamu yàlla goo xam ne sababam euh, saxul ci sunna ñaareel bi an takuna al ibadatu muwafiqatan li sharia fi jinsiha jaamu yàlla gi dafa war a dëppoo ak sharia ci qualité am xeetam xeetu yàlla gi ku ci doon joxe misaal mu gàtt borom xam-xam yi danañ ko faral di joxe moo di euh, ku tabaskee woon aw fas sax na ne xeetu xeet woowu muy fas des na ko tabaskee loolu soxul ku woon aw fas kon ak jaamu yàllaam daal di wuteeg sharia ci lan la wuteeg moom ci jinsam ci fa ci kali ci xeetam ñetteel ba an takuna al ibadatu muwafiqatan li sharia fi qadriha jaamu yàlla gi dafa war a dëppoo ak sharia ci ab limam su fekkee ne jaamu yàlla ga dañ koo lim soo jëloon albaqiyat alsalihat subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ne nit ki nag koy def fanweeri yoon ak ñett soo doon def julli boo julli yow def ko fanweeri yoon ak juróom amul xilaaf ci boroom xam-xame lislaam ci ne wérut soo doon taxawaloon di julli farata jàng sa fatixa ba mu àgg nga jàngaat jeneen te tey ko boroom xam-xami lislaam wute wuñ ci julli yàqu na ah sa fatiha lu baax la bu nit jóge fële ne ah da ngeen di tere ku jàng fatiha déedéet kenn terewu ko waaye ndax sax na sax na julli farata jàng ci fatiha ñaari yoon ci benn rakka loolu saxul borom xam-xam fiq dañ lay wax ne loolu ku ko def sa googa julli yàqu kon lim ba nga xam ne la sharia ne la nangam la bul yokk bul wàññi léeg-léeg na nga gis lu mel ne ay zikkar yoo xam ne dañ ko wutal lim su boobaa yemal ci lim ba gis yoo xam ne wutaluñ ko lim dañ ko ubbi ne la mu woog lu ci gën a bari te sell rek mooy ca gën loolaat ba tey bul wutal lim defal rek na la ko sa waxtu joxe boo mënee def junni tey defal junni jëru sax waññi toogal rek jël temps boo xam ne da ngay da ngay tudd laa wax illa allah waxdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kooku zikkar la boo xam ne mutlaq la dañ ko ubbi toogal sikkar ci ni la ko sa waxtu maye bu la maye fanweeri minute toogal def ko bu la maye fukki minute bu la maye ci waxtu nam la ko maye jarul sax ngay xam lim bi nu mu toll ndax kan koy defal moom xam ne ñaata la muy suñu borom tabaraka wa taala te lee moo bari nag boo tuul ngay naw sa bopp na naa li ma sikkar bari na ndax man defe naa ne tey jii tudd naa nangami junni démb defoon naa nangami junni boo ko boolee at mi boo tudd danaa wax laa ilaha illallah ci at mi yoon su ko defee waru day daal di dikk kon jarut ngay ci lim bi ginnaaw borom bi tabaraka wa taala moom du sànq jëfi képp kuy jëf kon loolu lu mat a xamaale la euh, ñeenteel bi an takuna al ibadatu muwafiqatan li sharia fi kayfiyatiha jaamu yàlla gi ngir mu wér ngir mu dëppoog sunna fa faw mu dëppoog moom ci melokaanam su fekkee ne borom day roy sunna dana jiim a góorgóorlu ba xam jaamu yàlla gi nan la ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defe mu defe ko noonu ndax su juyoog ni mu ko doon defe rek su jaamu yàlla day daal di yàqu du wér maanaam sa topp sunna day daal di day daal di manqué su dikkoon di jàpp tànqam ndoxam dikk tàmbalee ci raxas ay tànkam bu noppee raxas kanamam salfaañe ko defe ko nu ko neexe su àggalee cër ya war a tooy yépp dañ war leen raxas raxas na ko yéen war a masa masa na ko waaye juuyoona ak sunna googa jaamu yàlla dëppoo wut ak sunna ci lan la wuteeg sunna ñu ne la fii kayfiyatiha maanaam ci melokaanam melokaanu jaamu yàlla gi moom bu wuteeg sunna rek googa jaamu yàlla day daal di doyal juróomeel ba an takuna al ibadatu muwafiqatan li shariati fi zaman su fekkee jaamu yàlla gi sharia da ko wutal jamono joo xam ne ca lañ ko war a def sañ te juyoo ak jamono jooja masalan su ne woon day woor ramadan ci chaban wala daf koy woor ci rajab bi ñu nekk ndaxte bu ñëwee dafa am programme yu mu ci war a def nangam nangam nangam nangam soppi weeru koor woor ko ci jamono ji <coughs> kon amul benn werante ci ne wooru weeru kooram wérut maanaam wóoragul weeru koor su ramadaan ñëwee ba tey mi ngi ci baatam su ko wóorul kon bor la ci kawam ah loolu nag bokkul ak su fekkoon ne ramadaan dafa ñëw mu am ngaan wóoru ko ba ci rajab tey mu dikk woor ko ci weer wi bu boobaa dana am koor su ko wooree ci saabaan ba tey dana am ko waaye su fekkoon ne ramadan ak séegul nag mu ne dama koy gàttandu daal di bëgg a woor rajab ngir mu toog palaasu ramadan loolu dañ lay wax ne kooku wuute na ak sunna te baaxul lan la wuuteeg sunna ñu ne la fi zaman muy jamono yi moom ñoo wuute moo tax benn qaida muy ben régal ci sharia dañ lay wax ne kullu ibadatin muaqqata ida axrajaha al insanu an waqtiha biduni uzrin fahiya gayru maqbula bal marduda jëpp jaamu yàlla goo xam ne sariya daf ko wutal waxtu woo xam ne fa lañ ko war a defee nga ñëw génn waxtu woowu bañ ko caa def te amoo ngànt kooku jeex na yàlla duutu ko nangu googa jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala du ko nangu juróom-benneel ba te mooy bu mujj ba mooy an takuuna li sharia fi makaaniha jaamu yàlla gi bu fekkee ne dañ ko wutal béréb ci béréb boobu rek ca lañ ko mën a defe waaye boo ko defee feneen du baax boo jekki woon ba yowmal xajjil akbar bis bi nga xam ne mooy bisub aj gu mag gi mu yowmu arafaat juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski nit ñe taxaw arafa nga ne a ah, arafakat ab àll la te kaaba gi mooy li gën a tedd ci kaw suuf kon naa dem taxawi foofa man nit ñi yendu arafaat nga dikk yendu makka nekk fa kaaba ga di jullee ka ñaan ak a wër boroom xam-xami lislaam wuute wuñ ci ne sag aj baaxut yàqu na lu baax nga doon def de ne waaw lu baax la doon def waaye nag ak ajam yàqu na war naa jóge beneen yoon war naa dikk aj si waat ngir ak aj man koo wàcc loolu lu tax ñu ne jaamu yàlla ga dafa wuute ak na ko yàlla tere woon ci wàllu place béréb bañ ne woon nañ fa nekk bis sàngam dafa nekkut bis booba kon jaamu yàlla gi faw mu dëppoo ak sharia ci yooyu ngir ñi door ne nit ki topp na sunna waaye lu ci juyoo lu néew néew rek juyoo na ak sunna léeg-léeg nag juyoo gi yàq jaamu yàlla gi comme ni ngeen ko gisee ci yenn misaal léeg-léegi wàññi darajëb jaamu yàlla gi hmm? léeg-léeg mu wàññi ko ndax it kat léeg-léeg nga jaamu yàlla yoo xam ne nit ñi dañ koy def woo xam ne wuute na ak definu yonente bi sallallahu alayhi wa ne yow xëy na doo mën a àtte ne jaamu yàlla gi na waaye da nga gis ne da nga gis ne manqué na wuute na ak bi alayhi salatu wasalaam daan def dinaa la ci jox misaal ci julli di langal ay loxo julli bàyyi say loxo mu lang